Les cas positifs sont répartis comme suit. 81 cas contact suivis par nos services, 17 cas issus de la transmission communautaire et répartis dans les localités suivantes. Rufisque en a 3, Touba 3, Mariste 2, Dakar Plateau Diourbel 1 Liberté 6 1 Mbao 1 Wokam 1 Patte d'Oie 1 Sangalkam Ziguinchor et zone A patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos services ce jeudi 9 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 7882 cas ont été déclarés positifs, dont 5311 guéris, 145 décédés et donc 2425 sous traitement. Le ministère de la Santé et de sociale présente ses condoléances aux familles des, des disparus et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, notamment le port de masque. On va toujours insister sur l'importance du port de masque, surtout en cette période. mais également le respect de la distanciation sociale parce que nous fréquentons beaucoup les lieux publics présentement, mais insistons également sur le lavage des mains. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey ajjuma fukki fan ci weeru juillet bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat yi bàyyee ko ci laboratoire yi te ñu tëddee nii ci juróom-ñett téeméer ak juróom ak juróom-ñett test yi ñu def juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu nag mën nañ ci wàññi juróom-ñett fukk cas ak benn ñooy contact suivi par nos mooy maanaam contact yi nga xam ne ñoo jaxasoo woon ak ñi am doomu jàngoro ji fukk ak juróom-ñaar ñoo ci kaa communautaire mooy ñi nga xam ne feebar bi dañoo seetluwul fiñ ko jëlee ci ñooñu nag Rufisque am na ci ñett Touba am na ci ñett Mariste am na ci ñaar Dakar Plateau am na ci benn Diourbel am na ci benn Liberté siis am na ci benn Mbao am na ci benn Wokam am na ci benn Patte am na ci benn Sangalkam am na ci benn Ziguinchor am na ci benn Zona am na ci benn ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñi nekkoon ci hôpital yi wér nañu te dinañu génn tey bu si yàlla ànde fanweer ak juróom-ñetti cas ñu ngi ci service réanimation yi ñaari doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan di ci démb alxamis juróom-ñeenti fan ci weeru juillet bi nekk ñeneen yi nag ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk bi senegal commencé wàññi doomu ja euh, mbas mi ci biir réew mi mun nañu wax ne que Sénégal jot na wàññi juróomi junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn doomi aadama ñi nga xam ne jot nañu am doomu jàngoro ji ci ñooñu nag téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom